yaa xam mbay mi nga xamante ni euh, mënees na leen a bàyyi faalu Macky Sall ci soldat yi Macky Sall yi nga xamante ni ko gën a défendre daal ci média beeg ci réseaux sociaux rek la ñu wax ne moom nii kat dafa tawat tawat gu méttee métti sax lu jëm ci wàllum cardiaque am daal lu jëm ci wàllum xolam ba sax looloo waral njiitu réew mi def ay pexe ki yittee ba ñu évacuer ko yëpp ko fële ca euh, France ngir mën ko faj yi léegi daal moom mii itam. Euh, jàmbaar la lool ci jëm ci wàllum défendre Macky Sall fan yu néew yu néew yu ñu weesu fan yu ñu weesu sax am na ci benn télé bu demoon di ko wax seen TV doon fa défendre kii di njiitu réew mi benn malaise di ko doon ko fa ne ñu itam mas ak kii di dàmbo ci benn plateau waaye korok euh, xaw naa malmané kii di dàmbooj ngir défendre daal euh, njiitu réew mi waaye nag fi mu nekk nii ne ñu daal dañ ko évacuer fële ca France ngir nag mu faju ji ndax dafa ay problème mu kër koy ñaanal mu jotat ci wér-gu-yaram bu mën a dem siwaat ci rew mi ya xam bay mi nga xamanteni ni manes na na bay fallu Macky Sall ci soldat yi Macky Sall yi nga xamanteni ni ñu ko gëna a défendre daal ci média beeg ci souci ak fep rek la wax ne mom mi kat dafa tawat tawat bu metti metti sax jëm ci wàllum cardiaque am dal la jëm ci wàllum xolam ba sax loolu waral njiitu réew mi def ay pexé ki yitte ba évacuer ko yobbu ko fële ci France ngir man ko faji ngi dal mom mi tam Euh, jàmbaar la lool ci jëm ci wàllum défendre Macky Sall fan yii néew yu néew yu ñu weesu sax am na ci benn tele bu ñu demoon ñu ko wax Sen TV doon fa défendre kii di njiitu réew mi benn malaise di ko doon ko fëgg nee ñu itam mas naa ak kii di dàmb ci benn plateau waaye korok euh, xaw naa malmané kii di dàmbooj ngir défendre daal euh, réew mi waaye nag fi mu nekk nii nee ñu daal dañ ko évacuer fële ci France ngir nag mu faju ji ndax dafa am ay problème kër. kay lalu kita jotaat ci wér-gu-yaram